ci xët mu njëkk ci leeral point net manque d'eau à réaction après le calvaire des milliers de fidèles plongés dans une grosse soif li nga xamante ne rek mooy euh, mar bu amul àpp manqué ndox gi nga ne rek nemmeeku nañ ko Touba ci euh, màggal Touba gi rek ñi nga xamante ne ñooy euh, ay talibé yu jóge fu ne yi tamit daanoon nañ mar bu baax a baax ndaxte dëkk bi kat daal dina woon a manqué ndox bu baax a baax li nga xamante ne mooy ay forage yi fa nekkoon sax daal liñ doon xel sax du bari waaye tamit tuuti lay doon mu nekk rek li nga xamante dafa daal sax doyul ab ay nit yi nga xamante ne rek ñu ngi fa woon ci dëkk bu sell woowa waaye ay citerne rek ñoo mujj ñëw di daal di dimbali askan wi rek ngir ñu mën a am li nga xamante ne rek mooy ay ndox waaye tamit sax bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi dañoo ne am nañ sax ñi nga xamante ne sax ñëw nañ waaye boobu ba tey sanguwuñu bu ñu sukkandikoo rek ci ki nga xamante ne rek laaj nañ ko te tamit mu dëkk foofa ca Touba nee na dafa metti lool nga gis ñi nga xamante ne rek da leen a invité ñu daal di ci mbàggal ga te toog nañ lu yàgg yi tamit sanguwuñu am na ñoo xamante ne sax bi ñu ñëwee ba tey rek sanguwuñu bu ñu sukkandikoo ci journal journal bi waaye nag ñu mën a xamle rek manque ndox mi moom am na ay jafe-jafe bu baax a baax waa Touba moom mere nañ ñi nga xamante ne rek ñooy waa Sen'Eau